baxru bi ku ko xam kay te wax makkan moo ci njëkk faaxilun faaxilaatun wax makkan moo ci njëkk lay nuyoo te mooy dëgg say xindam sama tur maa ngi santulo murid dëgg assalaamu aleykum maa ngi leen siyaar teg ca màggal nit mu mët sëkk yéen kese ñi ma am say xarit tamit ci lay dugg xam naa sëriñ Mbay dafa waxoon sama xarit la waaye loolu am na xam naa ma doxam ma kii koy béy bi ne ko sëriñ Mbay diru dóor di set dal dañuy yëngu-yëngal kii amul sóob sëriñ Mbay diru dóor di set dal dañuy yëngu-yëngal fii amul sóob bilet bis at yi at lañ ko doon xaar dama bay ba sàmbay ñor damay góob te sax te sax yaay ki yay seddal di dóor ndax ba ngay tëdd ci lal maa ngi doon job xadiim ak wurus gii maa ko yelloo damay jël damay jël ko may kon lekk jil mbokk bu dul woon jumaa ji naa la wax tey lu dul fay ba foo jaar gaa yi naa wóob sëriñ mbay da ngay saawaay bu dee way daa tar ci kon ma koy tuub salaam nuyu dinaa di leen siyaar doon waa leen buur yàlla may leen ndam sax salaam nuyu dinaa siyaar te delluwaat leen buur yàlla may leen ndam lu sax may mutu nag yàlla buur julli ci yeneen bu wóor santaat sëriñ bu sooga ba am na lu ma jox jox na ma kaala ak mbubam jox na ma dokk diw yatam yab na ma yenkil moo fitam fu ma ko joor ci yii la daa ngi toj geew ndaanaan lool fu mu mas a teew ci géej woy bàyyi fa coow xereñ ga jox moo tax mu fax ma boole woon saarak yi ma ñoo ngi fi teew ñoom la joxoon jërë mba ak dokk ba sa tuloo xam sa tuloo kon jege sil ak mu tuloo jëmi digal ngeen jox mu bu mi fii mosol jël ndam mi yóbbu Hamza Lo ko njëkk si ak Modou Lo jëm dikkal ngeen jox moom mi fii ma toll jël ndam li yóbbu suñu gox. lii la yàlla may sant naa ko yaay mi sonn nu sàngone di ma toppatoo ba ma nekk mbër mi man yi la. li ma yàlla may sant naa ko yaay mi sonn sàngone di ma toppatoo ba ma nekk mbër mi mën ci mbër yi le aca bàkk leen aca bàkk leen aca bàkk leen aca bàkk leen lu bët aca bàkk leen aca bàkk leen mbër dëgg yegg si na fu mu dugg see tirbin birir dëggal ma jaw li le saalaali waa laal la way ya tey jasaaj ji na fu ñu jëy nga jël seex ci géew defen nga cay jële li ma réer jimboy nan ko cim taw jomb naa tërëf li ma leer ma moo tee ma seen sama maama daa ko fi man bi way ku ko sóoru suuf lee mu tee mu sama maama daa ko fi man bi way ku ko sóoru suuf lee suuf nu seen fi bi mi bàyyi jël mi la man ko jox mu tàmbali di ci raay way wu nit masaana teg file loolu lépp mooy jël ay mbapat mbër yëpp ba yam ma loolu lépp mooy jël ay mbapat mbër yëpp ba ràññe ma di ma bàyyi xel ak mus bu naa waxun ma booy bi gaynde njaay gi buuru àll ñaay bi tum fi ne tël fi di ñëpp rax rapal te wal ya aw na le gaynde njaay gi buuru àll ñaay bi tum fi ne tël fi di ñëpp rax rapal te wal ya aw na le du ma seen morom du ma seen morom ci woy li may bind ku ko dégg xam ne ko man yemoo wu lëg koy tële bu xalit ne waatoon tey takkal ma càq dam du rëy li ma def ci way dafa rëy ba tax ma mujj saf ñi fa ma jaar gaa yema doon tëkkoo ka jàppe koy tànd du ma naw la kenn ci lambi way te ñëpp a xam li le ana sama waaja doon tëban tuuti ba song ma dama ko gësam ba mu miin ma dóor mu daanu aw na le mbake balla moom dama ko rusoon ne ndax te sang la mbake balla moom dama ko rusoon ne ndax te sang la ba mu mujj dóor ko mu kaawu rek ma xëj ci teg na de te Abdou Ndiaye ña ko gemb woon keroog dañoo gëlëm dama koo yenoon ba ki kaw ma yen ñu dóor ci si de ne ku ma sóoru man ku ma sóoru man ba may tegal ndëndëm su ma nee jalan ñu ne expert raman ci géew bi le mbay loo jugal mbay loo jugal te xam ne tey sa nan du bon defi ne kekk laa ngi sa biir gëf sa bisub defet la yow xamal li le na xam ne tey di nga jël na nga xam ne tey di nga dellu taa ibeer jiw naqar ku la ngémbu réen ku la sopp jooy ma sa daw si le dégg naa écra para yi dañ ci def sa xel dégg naa écra para bi dañ ci def sa xel na la leer ba leer na prise bi sax mënoo ko fee jële dégg dégg naa écra bi dañ ci def sa xel na la leer ba leer na prise bi sax mënoo ko fee jële sama waay nga nag bu subaa nga ñëw ñu ànd sama waay nga nag bu subaa nga ñëw ñu ànd contenaire ma wutal la sama waay ne nag bu subaa ñu ànd conteneur mu wuta la fop rojo mbaa ma jën nalal la fop tere dama yeewu bis laab saa tukkal njal guy dañal ngir gis doona yónneen ba gën nañ yónni woon dama yeewu bis laab saa tukkal njal guy dañal ngir gis doona ba gën nañ yónni woon di wéeru ci war a kii tudd ak foore ki joor fu ma tëdd fekk ma tëdd xëy def naa defoon ku ñu bakke mbaax ku ne fëgg naa ci sa buntu kër ñi ma fëgg ñëpp damaa gisul man ci doon pexe noon dogak ay pàkk daan na ma tequtal ba ci këpputal daan nañ ko teg saay seen doyoon ñu tëggal ma ak ndox naa ma yow waaxi torox ci nga di wéy ñama daa sa koo def ma noon di ma tam akay tuumal ma naan lu mu metti metti du tax ma xof ne dama dajul la yonent dajoon wër naa ba gis fukki doom la ko yàlla mu tuddee juróom ya yoneen juróom ya ca des gis naa ko dem màkkaan ma diinatu ñett yoon te da doxal dox wër ko yoneen bii awoon ma gisaat ko tagg ko ba yoxoom ya mu daata yee ya futtu te teewu koy bàkk ak di jiin ñi ñëpp boof naa seen ngir wër dono yi sangum bi taxul ma gis man kum ci doon ñi ñëpp moom naa seede loon ngir wër goroy sangum bi léegi taxul ma gis man ci doon mooy wéy di wër ba jonog dëggub naataanga ak leeraay gu tar sooroorul mag bee fa seen ma ne man xanaa sooroor yu mag bee laa janeer la góor mu defee dëggu ka ñu yóbbu woon ma ne man xanaa sooroor yu mag bee laa janeer la góor mu defee dëggu ka ñu yóbbu woon gabam ak Konaakiri doomu ngir na mu mel gabam ak Konaakiri doomu ngir na mu mel te suñ na toom yi taxul mu weddi ko benn yoon tërëwul mu takk di gëm ne maa di ndonoom ba tax du ma nangu kenn di booyalaat la mu sonne woon bëggug yonent bëggug yonent bi moo waral xamutoon lu wax xamutoon lu tàng lu ne daa forox lu niin na mu daa soloog na mu daa waxeeg na mu daa jëfeeg na mu daa joxeeg doxi na moo tax daka caaro yoon di ko xeec ci wéeru ci moom jëfoon na ko jëf rëy la ci jiitu mooy yeesal sunaam sa ñu rappaloon di ko xeec ci ci moom jëfoon na ko jëf yu rëy la ci jiitu mooy yeesal sunaam sa ñu rappaloon tan nu yoneen ci la tànnewaati toilu been suuxan na taaral ganja xam nga mu jël ay mbiram jébbal ko nekk di jëwrinam jël ay mbiram jébbal ko nekk di jëwrinam def comme sagam ci cofeel la ko soppe woon alal ak juróom doomam nga noo kii taaxayam lu mu xam ci àddina suñ yoneen la ci jiitaloon ñi mu meñ ñi turu sangam bala leen Seex Mustapha ba ci Muxtada mi ñu mujj miin dafa wax ne bëgg ko moo ma woo jëme ci tagam te jëmam jëmoo ma gën a lu dee ci ndamoo ko jin daa de banaa yónnee nangul na ma lii ba tax fu ma yëggatee sama bindukaay rek ko seen fii la cofeel yam jig mbëggeel yëmutoon ci wax dafa jëf ba nit ak jinne ko seede woon ak yoonu ak pay na buur la mu sedde woon sangub xorey si la sedde waat mbër miinu min ak yoonu roox ak pay na buur la mu sedde woon sangub xorey si moonu min yónneen Ababakar ay saxaaba ba sant moom sëñ Bamba Seex Ibrahima ba moom àndaloon yun nen Ababakar ay saxaaba ba sas ca moom sëñ Bamba Cheikh Ibrahima borom ma mu àndaloon yun ca Makkaati Madina la dëkke woon sëñ Bamba Tuuba Njaare may fa mu féete woon yun ca an mu ne daañu xat daat koy siyaar sëñ Bamba an mu ne màggalam ñëw benn yoon yun ca an mu ne daañu xat daat siyaar sëñ Bamba an mu ne màggalam ñëw benn yoon yun nen jaasu ca réewi xaraab sëriñ Tuuba jumaam gisuñ ci ko jut yónneen jumaam jaatut ca réewi arab sëriñ Tuubaa jumaam ji kenn gisul ji ko tut feneen waxi góor ga fam daanoo falaa daanoo dimba ka ko ngir kama doon ci war naa ko seen mën a tekk lépp mën a tegg lépp ci suuf te noonu saaru gi jox ko ko ngir ku gëm ko ba am ak pay ci fi gën gënal yàlla ak yoneen ka gënal yoneen mooy bamba bëgg yoneen bi raw na ci ñeent ñëwoon ki fi gën gënal yàlla yoneen ka gënal yoneen mooy bamba bëgg yoneen bi raw na ci ñeeg ñëwant asalaamaaleykum wa rahmatullah ku jóg di màggal li yàlla màggal des na la màggal danañ la jiital